yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy bàyyi xel ñu ngi fii uh, ci appel Seydina Limaamu Laay Almahdi borom woote bi ki nga xamante ni moom yaa masharal jinni wal insi inni rasulillahi aleykum cent quarante quatrième appel uh, ma pasek sama xarit nit ku baax xale bu yaru xale bu ñàkk simple xale bu bëri filim depuis bi tamaa ngay xaar dellu ziar ci jour bi barke laay laay rek la ñuy topp <laughs> waaw barke laay rek mm-hmm. laay laay rek la ñuy topp tey. Mm-hmm. te mu wàllum laay laay rek laajte leen ma ci laay laay ma wax leen ko boo leen ma laaj lu dul laay laay duma leen si toog. waaw la ñu laaj la ci laay laay nga tontu ci laay laay. mais ba Seydina Limamou Laye euh, ñu gis ni euh, gis nañ influenceuse yeeg influenceurs yëpp mm-hmm. euh, tey jii képp koo xamante ni xew la Sénégal muy tigaan bi murit bi laayeen bi xaadar bi ñaseen bi mm-hmm. dañuy àndandoo ak ñoom événement yooyu nga xamante ni moo di événement religieux yi. d'accord <laughs> ma ni mm. gis nañu yéen influenceurs yi ak influenceuses yi uh-huh. ku xew ci réew mi rek muy uh-huh. tiijaan mu xaadir raayan dañuy gis ngeen def seen déplacement ak seen dérangement ñëw ànd ak ñoom bés bi d'accord waa léegi ñoom ñoo ñuy invité man ku ma invité ma lay ñëwal mm-hmm. su nekkee am naa jot mm-hmm. ku ma invité wul na duma la ñëwal te man du fépp laay dem ah. du fépp ngay dem non non tey lépp sono woote moo tax ma ñëwal ko te dafa nekk nit ku baax moo tax ma ñëwal ok keroog maam Ndiaye woote na nga dem. maam Ndiaye Savon kooku sama yaay la à part. Mm-hmm. kooku fu ma woon ma koy wis. ok mm-hmm. mais critique yi bëri euh, bi nga defee Kazu Rajab ak maam Ndiaye Savon. ok ñu bari wax ci oto bi nee nañ euh, góor moo la ko jëndal ñi nee sax Fallou moo la ko jëndal ama dégg ñu ni ñii sax euh, kii milliardaire bi lay jël la moo la ko jëndal gars yi ñu ngi wax lu nekk daal te nag tu mu ne du teew ñu ne te yaakaar naa yow yaa gën a nekk nit ku a pour jox leeral sénégalais yi. d'accord. kuh otobi oh, ma ko sama bopp mais bébé bintaala ak sama xaalis mais amagoo fi lu toll noonu ok yow mën nga wax loolu yow am nga fi lu fu toll noonu yow mais man ma oto aw sax ko sama bopp maa ko ak sama khalis nawle def na ma ko pour yooyu dafa mel ni oto bi da nga ko doon annoncé ndax avant nga génne oto bi toogoon nga say direct wala ci direct sax maam Ndiaye Savon ne waaj dugal na la oto bi oto bee ci yoon bi ci conteneur bi kon tey boo ko dawalee war nañ a ne ko jënd. ma la tontu yow wax ak yow. Ah, parce que man foofu laa xaalis maa liggéey maa ñafe maa ko jëndal sama bopp. voilà mi ngi noonu parce que man aw ma benn intérêt góor di ma jëndal oto parce que góor ñi léegi dañ lay jox nga jox rokim mi rokki rokki donc tu préfères que nga téye sa bop dem jëndal sa bop ak sa alal mo gën ñi naan dang ko loué nak lo leen wax néna ñama ko loué auto bi dé heure buñu xey dinañ ko gis ci man xana lo loué nak xana di ko délo ko c'est vrai ah nañ waxal ci dëgg focus la yoré de ford focus laa yore sa jour mom ngeen ni gis wa do leen gis mom ma sa changer benen auto vraiment mm-hmm. peut-être tamit xana yalla même ci diggante bi ma changer wat

ki nga xam ne sama xarit la maa ngi studio sama grand frère nit ku baax la amul benn problème vraiment Libaas mais noonu foofu la yem sa xarit la ba tey si kasu Rajab Mame Ndiaye Savon bi ñu gis ñu bëri di la critiquer ci côté habillement ñeen ñi naan Bébé eh, Bounta xamul yére fu koy sol fu muy demee ñi ne muy mel ni de réception lan wax ñooñu waaw dama bëgg sol maa tey lu ma sol la maa ko moom maa bay parce que li nga sol bi nga demee ci Mame Ndiaye nit ñi naan dafa yaraax nit ñi naan euh, bébé biir bi dafa rëy mel noonu loolu yëpp li ci wax ah loolu la ma ko xel sax néew ñi libaas xel de parce que gisuma ko bés